Si bëgg dama meloon 2000 ma mel ko 2024 la ma daan wax 2000 ma wax ko 2024 loolu mooy dëgg. ki ma daaw ki ma daan critiquer bu ko critiquer principe la. ma nekk fa bu changé na critiquer bu ci position ba ma nekkoon. mënoo dem campagne je xas ma la neex nga parti dem wuti sa candidat wu bopp élection yi des quelques jours nga dem seeti beneen coalition spoliée bu sottiwul ngeen tamante après deux semaines nga ñëw ci sama coalition après ma gagné di la def ministre affaire bi du sentiment du émotion yéen xana xooloo le kanam Ousmane Ousmane Sonko bi annoncé gouvernement bi la motax tax Sénégalais yi mënuñu def lecture ci Ousmane Sonko man genre nit la yëf yi du émotion gis nga être un patriote vrai patriote mhm. émotion du la animé réalité moo lay animé mhm. loolu moo tax yéen xam ngeen ni gouvernement bi ko xamni lu touti touti ci émotion mo ngi lay animer do taxawal gouvernement bu mel nii. jamais au plus grand jamais moo koy def. kon kon doon nga deg yeneen teg ci biir gouvernement bi yu bokul ak teg yi nga fi gis ni mais Ousmane Sonko réalité moo koy animé du émotion. donc nag booy booy incarner idéologie nit ki da ngay fexe am maîtrise comme moom bi mu am. c'est important ndox tàngul bu laké dañ ko wàll jikko da ngay fexe sa leader wàll la jikkoom hmm. Hmm. tey tay euh, Hadj Massour euh, tay en tant que président de la République muy euh, Bassirou Diomaye Fay mu né nous avons trouvé une situation déplorable tay mu am ay yenn ci ay médias yo xamné ñuy tontu phrase am bobu nga xamné tay tey propos boobu nga xamné yëkëti nako en tant que président. Hmm. tay médias yi ba légui ñu connait continué di jouer rôle bi nga xamné ne ñu koy jouer muy di saboter parce que tay tey tooguñu pale benn dossier nekkul sen ay loxo mais téwul ba légui ñi ngi sen seen ay trac.

Diomaye kay situation bu déshonorable la fi mais ñoom da mel duñu ay ah. sénégalais quand mm-hmm. même. yéen ci ay journalistes yoo xam dañu nek nekk monde. waaw journaliste bu bëgg déshonorer sa bopp mooy nga jéem honorer lu lu déshonorable moy li ma doon faral wax député yi ne am certains députés yo xam il faut ñu delloo ñu suñu honorabilité parce que mérité wuñ ñu wax leen non yooyu. Mm-hmm. mais Sénégal dañ ko déshabillé woon yow Sénégal bu benn ministre di taxaw toog bu média yi toog ci kanam. Mm-hmm. mu nan diw dama koy yóbbu ci yoon ñu jaay këram ma jël kër gi jaay ko 200 millions après yóbbu ko ci daara yi loolu ministre ministre yéen. nga xam daara yi ñoo koy yow ministre yow xale yi def immigration clandestine ñu comptabiliser benn benn guddi fii 275 personnes dee. gaal yi teer fii ci Wakaam bii Antoine Félix Diome ministre de l' intérieur dem fa. Hmm. ñu gis 5 xale yu dee. gaal gi defoon defe naa xuma

alors il y a 25 qui biir qui ok. des menteurs ont sont déshonorés..! dañu nos attitudes, attitude suñu comportement suñu suñu Dieu trouvé un pays très très très déshonoré même. Mhm. ci ay contrat ci ay ci ay Tu ay peux pot. soppi palais ak kër palais Le mhm. gouvernement là jiite aw askan lanen la fulla ji lanen man souma dama naan xam nga xam nga yenn saay booy négocier lah ci làkk boo maitriser wul luñ la jox nga jël man dama naan defe naa ne suñu suñu kilifa yi bu ñuy toog di négocier dañ dul dañ dootul dégg tubaab xawma dañ dul ànd ak ay juriste xawma dañ dul am temps lire texte xawma ñoom du ñoom ñooy defa contrat bi ñu war a proposer bu fekkee dañuy exploiter sénégal mais lu kenn lu kenn kenn kenn kenn munta xam nan la ci ay Lui déshonorer son son son société bi écoutez Macky Sall kañ la jiite woon Sénégal 2012 2012 la ñu travaux réfection immeuble admi kii mu tudd building building administratif xoolal ba xam noppi na wala de mu kii woon lakkaat kii woon ñu ne est-ce que est-ce que noppi na wala de nañ la wax ñaata milliards moo ci dugg bu yàgg ñun loolu doyul lancé waa beneen milliard ba léegi nii nous entre temps nañ la wax ñaata milliards la ñu kasar libéraux yi ñoo fi indi meeting ñëpp toog ñëpp toog Nous génne ay millions di ko distribuer Nous, avons yi ñëpp di gis loolu libéraux yi ñoo fi indi socialiste ñoo fi indi ko di sàcc parce que li ñu amoon ci ay biens mënuñu koo am noonu kese façon gestion yu bon yooyu a parfaitement raison ay nit yu déshonoré Sénégal lañu fekk jàpp ay góor dugal leen kaso amul ku sant Mbàkke amul ku sant si amul ku sant nen di jaxase ay nit man da ngay gis toog na wax naa ko fii benn jour da nga toog mu ni diw nañ nangamtaan ci kaso bi. Oh, comme ça. saa dugal ci kaso bi comme bonjour. sa kanam neexu ko rek. sa neexu ko wala sa position wala sa taxawaay. ay eh, waay wala say kàddu. kese say kàddu arrangé wu. kese. wala nga jël nit nit woo la sama ngeen échange sa waay dañ lay jàpp de dañ koy jàpp jàpp leen ma set bu dee yéen doo nga seen maam dëkk jàpp leen ma set. yooyu xeeti menace. fii nii benn ministre toog na fi jékki-jékki jël téléphone woo sama benn confrère ni ko bon soi-disant El Hadj là il passe tout son temps à insulter le chef de l'État ku mos a moom saa le chef de l'État on va le mettre en prison. waaw mën ko moom bu duggul moom du ma dugg. parce que rasulilah moom ay jiitu prison. waxin la c'est-à-dire pour wax la ni ñun ñëpp nekk nañ ay victimes ci yooyu. Mhm yaay am sa fulla bopp rek yàlla musal la nga sëñ Saliou Guèye bi ñu ko convoqué billahi mu ngi may dégg du ma bàyyi ma fen je l'appelle ni ko mon grand bul ñàddal sa bopp kenn ci pénc mu lay rendi parce que pénc bi yàgg ñëpp ko bokk bul nangoo nekk victime kenn pourquoi prison gars yi bu ñu la convoqué lañ lay tëj de mun ma comment faire man ko waaye dëkk bi grand kenn moomu ko ñun ñëpp ko bokk mhm. yow defoo lu ñaaw waxoo lu ñaaw xasoo fi kenn mhm. toog waaye doo nga la yóbbee lu ñu nekk nii xoolal sëñ Saliou Gueye teg ko naan ko yow tu n'es pas journaliste. alors yow mu toog naan ko tu n'es pas journaliste. Mm-hmm. bi ngay dugg école primaire fekk na sëñ Saliou Gueye di bind di bind nekk journaliste le témoin. Mm-hmm. yow bi ngay jàng yow fekk na moom bi ngay dugg primaire fekk na moom mu nekk le témoin di bind article am. Mm-hmm. vu at yu mu la màggee ak at yi mu def ci métier bi ak yow at yi nga am. nga taxaw inculpé ko parce que nee nga ko amoo carte de presse. carte de presse Macky Sall bii nga xamante ni bii patron de presse yi demoon négocier ko yépp médiocrité lañ fa négocier ak seen intérêt bopp. war nañ ko xoolaat de. amul benn njëriñ man leen bu dee man doo nga téye leen seen i carte bugguma mhm. je maintiens mes propos bugguma seen i ay carte parce que code de la presse bi ngeen bi ngeen négocier ñu fa teewoon ne ay journalistes ce sont pas des journalistes ce sont des patrons de la presse ay patrons de la presse lañu même bu nekkee ay journalistes conserver ak préserver seen entreprise moo leen gënal intérêt journaliste convention collective taille journaliste salaire minimum 215 000 minimum 215 000 demain nga xol am na ben ci ñom kuy lijeenté fay journal 215 000 bo demé ci convention collective bi a prime de y a prime de santé Il y a 13 mois am congé y a euh, frais de mission sénégal 21 000 le 22 000 à l'étranger 60 000 L'agent organique comment Sénégal futur média qu'est quest quest rek respecte respecté nous futur média qu'est-ce respecte média que ñëw nous média quest ce que. nous Youssou qu'est-ce salaire convention de base collective 215 000 mom mo am assurance maladie pour ay liguey katam mom mo lay verser IPRES caisse sécurité sociale au moins taxaw nañu sa ben coopérative d'habitat bo xam donte dañoo mujj détour na xaalis parce que man sama xaalis da nga fa ba légui mujjul sotti mais au moins mom mo fi def li meuna wax ni mom dong moy fay chaque jour vingt et un mille mission fi ci biir réew mi à l'étranger soixante mille maa ko man. mako ko dund ñu comptabiliser ñu pendant campagne bi trois semaines campagne ñu doon liggéey ñëpp ku nekk ñu jox la ce frais d'émission mission ba ci ñi nekkoon rédaction génnuñu kenn ku nekk am nga 5000 pendant 3 semaines tun naa ko ay élection fofu bu amul benen organe bu ko respecté Sénégal waaw nga jóge fi ne dem négocier ci lo xamanteni bi da ngay naan indi benn carte de presse bo xamni Macky Sall moko ko même seen carte yi dañ koy xoolaat. ñun ñooy ban société mo gagné mool carte de presse ban société mo gagné mool suñu carte d'identité biométrique nga xamanteni bi du sénégalais de tu doon sénégalais. suñu carte suñu permis de conduire yi du sénégalais suñu carte à grise auto yi du sénégalais. plaque yi du sénégalais. et li ci gën a doy waa mooy étranger yi ko moom yi koy contrôlé mën soo fay dafa def ba nga xamante ni bii gars yi dañu koy jaayante mu leen neex ñi ko jëkkoon yow di ko exploité dañu ko exploité bu neex ñu jox ko ñeneen. te étranger lañ ñëpp ay étranger lañ. di ko paasante seen biir. waaw jël fukki junni nit yóbbu leen chômage muy ñi doon liggéey ci defar plaque auto yi.

nuñ koy woowee te kayit boobu di ànd ak oto bu ñëwee quelques jours yi. wala nga koy miitee CMC CMC bi. tey la ñu gën a bëri Sénégal tey la oto yu amul kayit ñu leen di dawale euh, attestation gën a bëri Sénégal. tey la gën a bëri Sénégal bàyyi oto sàcc yi ñu ngi fi ni gàtt oto sàcc yaa ngi fi ni gàtt. sacré Sénégal. sacré Sénégal ñu bëgg ñoo imp man soo fay imposer ñu ay naaw yoo xam yow permis bi. ay groupe sànge nag naan en cas bu fekkee def nga accident. yow boo defee accident yow bala ñuy xalaat groupe sànge sax yow sapeur pompier am accès ci yow pour jël la yóbbu hôpital. Mm-hmm. yow nga def accident ba dee foofu boo fa sapeur soo yëg si. Mm-hmm. ñu naan bu ñu naan day tax bu sa deret di bëri tuuro ah. euh, bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xoolee sa permi xam groupe sanguin bi nga doon pour ñu mën la teel a sauver yow ki lay indi sang bi du yëg yu lëndëm yooyu ñoo mën soo fay def Mansour bi avec transport amone na coow bi avec euh ci Covid ba. Covid ba amone na amna am bu jiitu won bu Mansour jaagati won solidarité nationale. amoon na coow ndox ma ndox mi Mansour bam fa awé amone na mais permis yi mom ak affaire carte ni carte de presse rek Moussa yow talon yi ngay yi ngay talon yi ngay def ñuy defaree passeport Sénégal mënu ko importer boppam moom. Sénégal mënu ko sax defal fii mënta am indi sax usine bu def ko fii xam exporté koy Malaisie. carton yi marché bu sénégalais gagné traité ni mu ko sénégalais à l'étranger xam passeport à temps. Mm-hmm. parce que talon yi du dem. parce que ki koy indi am na toll ni bu ñu ko ay talon mm-hmm. jox ko privilège gouvernement taloo yi ñuy defaree suñu ay passeport des fois nga dem ñun la dañu am problème ay machine dañu am problème lii dañu am lii dañu am lii talon yi doyul. talon manqué. bàyyi ma sax talon yi moo doyul man maa ci am firnde bu leer def ci benn enquête bu leer foofu laa yem mais xam naa ki gagné marché bi xam naa turam xam naa góor la wala jigéen la xam naa fu muy jëlee carton bi xam naa lan moo tax yenn saa yi mu naj carton yi talon yi ba du dem ci yenn ambassades yi. xam ko def naa ci enquête bu baax a baax ak ñi defal passeport yi ci bitim réew mu am ci ay xam-xam yu wóor yooyu nag day jeex. Mm-hmm. yooyu day jeex fii nii yooyu yëpp gouvernement bi la nooy jëlee yow sa sa talon passeport jox ko benn jigéen mu koy gérer di di di di non. yéeme na non c'est grave quoi Baye Moussa. Euh, hélas ci passation de service boobu tey ndax ñi taxaw.